asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yu 2STV ak mbokki origine fm 88 point 4 del siwaat nañu ak seen jotaay bii ngeen miin ci bilaal ngeen koy namm mu leen di namm saa su ne seen ñaareelu jotaay ñu fas yéene yeggale ak yéen liggéey bi nga xamante ni moom la ñu sumboon ak yéen macha allah ci suñu bilaal yi nga xamante ni ñoo fi ne muy ay bilaal yu mag ay bilaal yu naw macha allah di def liggéey bu am solo bii nga xamante ni miin ngeen ko ci ñoom bal maa jubli ci loolu ma présenté membre jury bi macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu Cheikh Abdallah Gaye ñu ngi lay nuyu di nuyu Bilal yi nuyu mboolem sénégalais. buy mm-hmm. cisaan. yow la kan. Mouhamed Moustapha Lo. aywa jazakumullah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam Baye laa ñu ngi lay ziar bu baax. di nuyu képp ki cisaan émission Bilal. Mm-hmm. yow la kan. man la Ousmane Niang bokk ci membre jury. ah kooku ab ñangeen la moom waaye tey mburu amu fi tey moom nodd rek fi am ak macha allah liggéey bu am solo kon mbokk yi ñu soobu ci liggéey bi ngeen ànd ak ñun comme ni ñu leen koy waxee saa su ne yéen a ngi ci seen saal yi di toog di ànd ak seen télévision 2STV macha allah ci émission bu mag bii di bilaal bëgg nañ ngeen di déglu di jéem di noter ànd ak jury bi macha allah liggéey bi nga xam ne moom la fi mbokk yi di def dañuy commencé nag ci Bilal yu mag yi maa ngi woo suñu mbokk Babacar Bité Babacar Bité. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. man la Babacar bi tey Kossy Bañes. allahu akbar allahu akbar. allah.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح allah macha allah mbokk yi kon yéen dégg nañ suñ mbokk xaj Babacar bi tey mu nodd nodd boobu ah jury bi nag yéen a ngoog ak seen liggéey ñu wax leen ni incha allah jury bi dina am trois personnes la war a doon te ñetteel bi dafa am ngant rek mais incha allah bu ñu fi dajawaatee dina teew ngeen xam ko bu baax te bàyyi ko xel macha allah mbokk nodd bi am na solo waaye jury bi ci gën a xam dara ndax man fooruma ci nodd kon ñoom ñu ngi xool nu ñu koy saytoo ak nu ñu koy liggéeye yéen it xam naa yéen a ngi toog seen saal di ànd ak ñun di xool nan ngeen di notee kon laaj bi nga xamante ni moom lañ lay laaj mooy ma hiya shurut lati yanbaghi an tatawaqara ala al muaddin li ñu ci jublu mooy yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bëgg ànd ak ñun li ñuy laaj suñu mbokk mi mooy yan chart moo war a daje ci nit ki pour mu doon noddukat waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maaleykum salaam. ñu ngi leen nuyu di ñëpp macha allah. yoo xam mhm. ne question bi am na solo lool. Mhm. ndaxte ñun yàlla dafa def jàng ci hadiis yu bari yoo xamante ni ak mandargay noddukat. Mhm. ak fu mu jugee ko. ak kan moo ko daan def. ci kanam yonent sallallahu alayhi wa nga xam ne dem na bañ ne yonent sallallahu alayhi sallam bu demaan ba xolam naqadi. dafa naan bilaal jugal noddu. bu noddu rek xalam neex. Mm-hmm. te jël nañ ci xadis yoo xamante ni abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal wax na ne law yaalamuna annaasa ma fi nidaai wa safi l awal summa lam yajidu illa an yastahimu alayhi la stahimu alayhi walaw yaalamuna ma fi tajhiri la stabaqu ilayhi walaw yaalamuna ma fi l atamati wa subhi la atawhuma walaw xabban incha allah dinañ ñëw ci xadis yoo boobu mu wax ak yi mu ci wax mais dama bëgg nga ñëw directement ci laaj bi yan mooy charte yi war a daje ci nit ki pour mu doon noddukat waaw noddukat li njëkk ci moom mooy mu xam baat yi muy noddu gannaaw bu mu ko jàngee ndax ni mu koy jàngee ak ni mu koy waxee am na wuute goo xam ne am na ci ndax ci téere boo fa demee nam lay bindal nodd dëgg dëgg dëgg soo koy noddu dana am loo xam ne da ko ci lekk loolu nag ci loxatul la noddu bala nga koo man fokk nga xam lan mooy baat yi baati ser yi te nga man koo wax mu leer nañ ci noppi nit ñi mu nekk wax joo xam ne boo ko waxee du nekk wax joo xam ne dafay yàq waaye dafay defar comme ni nga xam noonu lañ ko bëggee woon nga xamante ni baat yi day rafet jaar yoon aussi tim yow tim nga nekk koo xamante ni ku am diine nga koo xamante ni ku ku ku ku am diine nga ku jub nga macha allah nga nekk koo xamante ni tamit da ngaa sell nit ñuy jublu ci yow nga nekk ku maandu lool tamit am na solo lool ci noddukat nekk koo xam ne daal lépp loo xam ne ñu koy seen ci ku baax rek mën nañ ko gis ci yow macha allah suñu mbokk mi kon xaaj Babacar jërëjëf jazakumullah xayran aywa xiyaakumullah kon ma dugal sama ñaareelu mbokk mi ñu koy wax Sadibou Diouf Sadibou Diouf bismillah allah أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله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 الصلاة tabarakallahu mbokk yi kon suñu mbokk xaj Sadi bu Diouf kontaan nañu jury bi am na lu ñu yóbbante de moom ñëw ñëw bismillah woon mal farq bayna al adaan wal maanaam nodd dafa am liqaam am lan moo wuutale nodd ak liqaam loolu lan laaj ñoom waaw jërëjëf lu wuute liqaam ak nodd nodd boo koy def dangay ngay woo nit ñi pour ñu ñëw julli si maanaam xayaala sala mhm. maanaam da ngay woo nit ñi pour ñëw julli si waaye booy li xam boo ñëwee ba ci xaamati sala maanaam da ngay woo ne maanaam dañuy woo ne waxtu bi def nañ ko tax di maanaam waxtu bi jot na dëgg dëgg dëgg loolu différencier noddu ak li xam macha allah kon leer na suñu mbokk mi nee na noddu da ngay woote di xayya ala sala nee na boo ñëwee ci liqaam nag dangay ngay xat xaamati sala mooy wane ni waxtu wi jot na kon juri baa ngoog yéen a ngoog mbokk yi jazakumullah xayran suñu mbokk ma woo suñ mbokk Mamadou Guèye ah gis ngeen jury baa ngi ci de xaw ma lu ñuy lijjanti nag waaye ñu ngi ci bu baax ñu ngi yër waxtaan aywa Mamadou bismillah أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله suñ mbokk kon mëmadu gay moom it nodd na dégg ngeen ko waaye membre jury bi dégg nañ ko kon ñoo na ngi seen liggéey macha allah muy liggéey bu jafe comme ni ma leen koy waxee rek saa su ne jury bi nag am na lu ñu ma yóbbante pour ma jox la ko muy ñetteelu laaj ndax euh, Mamadou ñoom dañu wax ni dañu bëgg nga hal yumkinu lil muaddin an yuqima fil waqti sa maanaam ndax kii nodd may nañ ko su noddee ba pare bu ñuy julli mu liqaam est-ce que loolu mën na ne tontu bi nag waaw wala déet lañ ci soxla. waaw may nañ ko mu liqaam. Mhm. mu nodd ba pare ñëw liqaamaat. mu nodd ba noppi bu ñuy julli mu liqaam. waaw mën na ne. waaw mën na ne quoi. jazakumullah xayran kon mbokk moom it jërëjëf kon Momadou yàlla na yàlla la kon maam Régis Ba ak seen liggéey ma woo Ousseynou Sow. allahu akbar allahu akbar. الله أكبر الله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 على الصلاة حي على الصلاة الفلاح على الفلاح macha allah suñ mbokk Ousseynou Gueye moom it euh, nodd na dégg ngeen ko yéen téléspectateurs yi waa jury bi dégg nañ ko ñu ngi ci seen liggéey kon yéen ànd leen ak jury bi ci liggéey boom solo bi ñuy def jury bi nag am na yóbbante bu ñu la joxoon de mu ñëw bismillah waaye ñoom dañ di woon ma laaj yajuuzu lil mar'a an tu'addin ndax jaadu na ci jigéen muy nodd nee nañ nga wax waaw wala déet ñu xam jaaduwul si jigéen mu nodd waaw lu tax loolu de maa ko ci dolli kenn santuma ko yàq ci dolli. waaw lu tax du noonu. parce que jigéen jigéen maanaam bokkul ci lii tax mu war a nodd. d'accord waaw leer na jërëjëf. waaw góor rek lañ nangul mu nodd. bi laaj bi ñu doon mujj laaj nag kenn du la ko notee ndax maa ko ci dugal waaye bokku ca macha allah. aywa ma woo Gaaj alxaaji Momar Gaaj. allahu akbar allahu akbar. الله أكبر الله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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه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 macha allah suñu mbokku alxaaji Momar Gaaj moom it eh, nodd na yéen a ngoog jury baa ngoog seen liggéey ngoog yéen bi yàlla bu ma nekk seen place yéen am ngeen problème de seen nodd yi ma fi dégg tey jii xaw ma nu ngeen def ba départagé leen kooku nag seen la yàlla yàlla jàppale leen macha allah ne ñëpp ñaanal yàlla jàppale ndax liggéey bu diis la ñu yor allah xaj Momar gars yi dañ am laaj buñ la jox de dañ ni woon ma laaj la ndax dagan na ci noddukat bi muy noddu qaaidan wa huwa qaadirun ala alqiyaam mu toog di noddu fekk ni mënul na jóg taxaw muy noddu est-ce que loolu jaaduwul mhm. ci li dagan mooy day taxaw mhm. jublu ci penku bi mhm. bu dee mën na taxaw day taxaw jublu penku bi macha allah jërëjëf kon leer na jazakumullah xayran ya xaaji Momar Gaaj ñu woo Mouhamadul Amin Sow الله أكبر الله أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي incha allah Mouhamadul Amin saw moom it dégg ngeen ko nodd na membre jury bi ñu ngi ci seen liggéey yéen ñi ànd ak ñun yéen it xam naa yéen a ngi noté kenn ku ne dégg na suñu mbokk yi du juróom benn noddkat yoo xamante ni ñoo ñu doon noddal ci mag ñi def liggéey ba am solo lu boobu kon Mouhamadul Amin mbokk yi am na laaj bu ñu la jox de uh, dañ ñu woon ñu laaj la ndax noddukat bi dañu wax ni dees na ko jéggalul ay bàkkaaram lu ko dégg rek da koy jéggalul ba ci jën yi ci géej gi est-ce que loolu am na wala bi loolu am na loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mm-hmm. nee na noddukat fu mu nodd lépp lu mës dégg baatam rek laa yasmau mada sawtil muazzin illa shahida lahu yowma alqiyaama mm-hmm. waaw léegi doo dégg maanaam nit lépp loo xamante ne noddukat fépp fu mu nodd lépp lu mës a dégg sawtam yowmal lépp lu mës a dégg sawtam fii si àdduna bu yowmal qiyaama da koy seedal ne jégg kon confirmé nga ni. jën bi dina ko jéggalu. dina ko jéggalu la hmm. macha allah jërëjëf Mouhamadul Amin jërëjëf. macha allah mbokk yi kon dégg ngeen suñu noddkat yooyu muy juróom-benn noddkat yoo xamante ni ñooy mag ñi ci seen émission bii di Bilal kon ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen ci xale yi ñoom it ci seen wàllu nodd ñu war a doonaat ay juróom-benn xale yi ngeen ànd ak ñoom di note jury bi di note amoon nañ sax juróom kenn ko waroon na ñëw muy Bamba mais xam ngeen ko dafa mujj a ragal mu ngi fii ci son bi rek di sonal nit ñi. te waajoon na bañ ni mooy noddal deux deux S ren mooy suñu kii waaye dafa daw tàppet bu mag la ne ko ñëpp gis macha allah seede ko Bamba mu ngi fii ci yor son bi di sonal nit ñi rek kon ba ci kanam mbokk yi. jërëjëf mbokk yi kon ñu dellu siwaat ak yéen seen liggéey bu am solo bi di seen émission bi laal seen télévision 2STV di leen ko présenté. ñu ànd ci ak suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy membre bi di Mouhamadou Moustapha Lo ak Sidna Ousmane Niang macha allah ànd ak yéen ci liggéey boo am solo bi yàlla na yàlla fayal ñu leen kon nag ñu jublu ci xale yi ginnaaw bi nga xamante ni pare nañ ci mag ñi xale yi la ñuy war a jublu ñoom it ci wàllu nodd bi maa ngi woo Mouhamad Omar Sow Mouhamad Omar Sow. allahu akbar allahu akbar.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 mu bokk ci suñu bilaal yu ndaw yi yal na yàlla fayal ñu leen fay seen wayjur yi macha allah fay seen sëriñ baar yi leen taxaw waa Mouhamad Omar yi jox nañ la fi benn yóbbante de mu ñëw nee nañ ma laaj la lal la kiy jàpp di wax buy door njàppam bismillahi rahmaan bismillah ñetti yoon kon nag mu ngoog nee na booy jàpp bismillahi rahmaani rahim ngay wax tàmbali sa jàpp jërëjëf kay kon jury bi dégg nañ yéen dégg ngeen macha allah yéen waa campement xam naa yéen ñëpp ngi déglu kon seen dooma ngoog jaar na moom it yàlla yàlla fayal ñu ko Ibrahima Ndiaye ah salaamaaleykum Ibrahima salaamaaleykum. Ah, bu ndaw ndaw laa am kon nañ déglu Bilal Bilal bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi tudd Ibrahima Ndiaye dëkk Medina. jàngee daara abdullah ibnu mas'ud tubaab jalaaw allahu akbar allahu akbar allah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 suñ mbokk Ibrahima Ndiaye dégg ngeen ko moom it nodd na juri baa ngoog yéen a di ànd ak macha allahu xale yi waaye Ibrahima gars yi jox nañ la fi benn laaj de ma jox la ko nee nañ ma laaj la bu nit déggee noddukat bu ñu noddee ba pare lan nga war a wax allahumma rabba hadihi dacwati taama wassalaati alqaa'ima aati muhammadan alwasilata walfadilata wabcathuhu maqaaman mahmuudan alladi waad xayaaka allah jazakumullah xeyran bismillah jërëjëf kon suñu mbokk ibrahim dégg ngeen nee na bu ñu noddee ba pare loolu la ñuy wax wóoruma nag ndax man taxumaa ay noonu léegi nag xëy na yéen ngeen tane ma ci wala membre jury bi waaye daal wax na waaye nag seetlu naa benn sew-sew nag ci li mu wax waaw wabaas maqam mahmud alladi wa attala yam te am na ñu ciy dolli leneen dinañ xam est ce que dolli boobu ñu ciy dolli ñun ñoo ko ci yokk wala da cee war a am ndax di nga dégg koo xam ne bu fay daan innaka laa tuxliful miihaad ndax loolu ci la bokkam déet incha allah dina leer ci kanam euh, moo Omar Dia allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah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 الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. macha allah suñu mbokk Omar Dia. dégg ngeen ko moom it ak noddam bu am solo membre jury ba ngoog yéen a ngoog ñuy ànd ci liggéey bi rek macha allah ziare waa Kër masaar yépp gis ngeen liggéey bii ren dañ ko gën a yaatal yéen a ngi dégg ci région yi nit ñaa ngi fii jóge te lañ lañ ko gën di bëgg di yaatale allah ndax fañ jëm yeggaguñ fa fu soree sore lañ fa séenee jëm ànd ak yéen macha allah Omar mbokk yi de am na bu ñu la jox de mu ñëw. dem ni naa la laaj jàkk ji ñu njëkk tabax ci lislaam. huwa masjidul haram. masjidul haram. macha allah suñu mbokk nee na jàkk ji ñu tabax ci lislaam mooy masjidul haram masjidul haram defe naa kaabatullahi musharafa jàkk ji foofu kon moom la wax kon ñu dem aywa Mouhamad Diallo allahu akbar allahu akbar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 macha allah suñ mbokk Mouhamed Diallo moom it dégg nañ ko mu bokk ci bilaal yu ndaw yi est-ce que bilaal sax dina ndaw macha allah ñii li ñuy def dafa rëy yàlla yàlla fayal ñu leen fay seen i wayjur fay seen seen daara yi macha allah gars yi am na lu ñu la jox de mu ñëw nee ma jox la nga wax ñu ñaan gi ñu war a ñaan ginnaaw bu ñu noddee ba pare bu ñu noddee ba pare nit bu ñu baal ma boo jàppee ba pare boo jàppee ba pare ban ñaan nga war a ñaan da ngay jàpp jàpp nga ba pare looy wax waroo am ñaan boo ñaan foofu wala looy wax wala bu dul ñaan lan ngay wax lan la ñu tàmm dégg nit ki bu jàppee ba pare mu koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah muhammadan rasul abduhu wa rasuluh mm-hmm. macha kon kon suñ mbokk Mouhamed Diallo jàng nodd na tontu na laajam juri baa ngoog yéen a ngoog allah waa Kébé meer ziyaar nañ leen bismillah ma woo suma mbokk Mouhamad Dia Mouhamad akbar allah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 واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه allah macha allahu suñu mbokk Mouhamad Dia moom it dégg ngeen ko mun a doon na solo yàlla na yàlla fay jury bi nag am na lu ñu la fi yóbbante woon mu ñëw. nee naan bismillah waaw moom day bi dafa xaw ma day ñu xaw ma parce que moom ñu garaw la fi indi waaye baax na yàgg jury bi la léegi nag ni nga wax ñu ñaan bi nga xamante ni moom la nit kii di ñaan buy jul moom la ubbee julleen maanaam baada takbiratul ihram nee nga allahu akbar looy ñaan foofu leer na wala leer karir <laughs> karir moom kéet am na ñoo xam ne bu ñuy julli dañu ñëw allahu akbar bismillahi arrahmani arrahim alhamd commencé tari am ñoo xam da nga gis ñu ne allahu akbar nga dégg ñu noppi ab diir jékki-jékki bismillahi arrahmani arrahim wala jékkati alhamdulilahi rabbil alamin yëkkati ci kaw léegi ñaan boobu ñi nga xam ne buñ ñu kaa bari nga toog tuuti soog a dégg ñu wax moom la gaa yi wax nga wax ñaan bi bal allahumma salli ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf kon kon mbokk mi nee na allahumma salli ala muhammad ngay wax yéen a ngoog di déglu ñu xool rek le jury bi di wax nu wànneen di mujjee ki bëtam waaye wax ñu dem maam sama dernier candidat nag ci xale yi muy Leyti Fall ab faaleen Sénégal léegi neex na de faaleen yi sax léegi dañ leen di dugal ci programme Abraham lii doy na waar de xanaa jéem a xool rek maa ngi tudd Leyti Fall jóge fii Boros Becco quartier Rumbatin doon jànge arab oustaz Balla Boy bismillah allahu akbar allah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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء laa ilaaha illallah. macha allah suñu mbokku ah gonek Fallène ngi de dégg ngeen ko Leyti Fall xam naa ni fi ne Fallène yëpp a ngi toog di tiitaru waaye baax na ba ci kanam loolu muy la am solo mbokk yi kii nag moo doon si juróom-benneelu xale ci xale yi nga xamante ni ñoo doon nodd am laaj bu ñu koy laaj moom it waa jury bi jox ko ko suñu paree nag jox membre jury bi suñu paree nag tëj émission bi incha allah ba dajawaat fii incha allahu ci jàmm ak salaam walayti gars yi de laaj nan la laaj boo xam ne ni dina yomb na ci faaleen man dama bëggoon bu jafe sax mais bi dafa yomb nee nañ nga wax julli ci lu ñuy ubbee julli ak lu ñuy tëjee julli alsalaatu muftataxatun bi takbir wa muxtatamatun bi taslim man jànguma arab de booy xaw ma li nga wax man xaw ma ci li nga maanaam arman da ngay yéene. Mhm. lu si arab lu ma firi. Mhm. muftatahatun bi takbir. Mhm. moo ngi ubbeewu si julli. mooy lan wax allahu akbar. takbiratul ihram. loolu ngay ubbee wa muxtatamatun bi taslim mooy lan sa um, nga sëlmal. salaamualeykum jeex na mbokk yi kon laaj yaa tontu nañu mag ñi tontu nañu nodd nañu suñu xol sedd na macha allah juré bangoog di liggéey seen liggéey yàlla na yàlla fayal ñu leen ma nag ni mbokk yi liggéey bu solo bii dara taxul ñu indi ko lu dul def promotion nodd nit ñi xam lan mooy nodd nodd du caaxaan nodd du caaxaan mbokk yi lii Mouhamed di wax sànk rek nii loo xamante ni yowmal qiyam lépp lu déggoon sa baat da lay seede loolu rek jar na nodd kat ba waxoon na ko ma leen koy répéter toujours kun bilaalan walaw darabuka doonal noddukat doon télé dañ lay dóor waaw te waxam jëm doon wax naan in kun imaaman in talabuuka wa kun bilaalan walaw darabuuka wala takun qaadiyan walaw qataluuka kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax xam naa ne waa jury bi sonn ngeen tey seen liggéey jafe na waaye ñu ngi waaj tëj émission bi kon ma jox kenn rek ci membre jury bi eh, kàddu mu jotal kàddu yi gàtt ba lu ñoo tëj émission bi aywa salaamaaleykum waaleykum salaam wa tey moom xool sedd na ah, bilaal yi moom macha allahu taala bilaalu 2018 yi mhm. ah yaakaar naa saf nañ sàpp maa ngi gis caméraman yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bëgg lool ñi ngi sant ñëpp vraiment di la sant si sa présentation mhm. am na solo lool di sant sama mbokk mi mhm. Ousmane Niang di ñaanal 2STV vraiment yàlla may la ndam si li nga xam ne ni ñu ngi koy taxawee di sant bu baax a baax bilaal yi di leen jox dig daje insha allahu taala ba lii di ñëw mais yow woo sponsor yi wala bëggoo kenn ko sponsorisé lii ñu teral xale yi xam nga sponsor yi moom sëñ bi mhm. buñ jaaroon yoon kenn wur leen a woo parce que lu toll nii vraiment mhm. loo xam ne ni seeni doom seeni jarbaat ñoo koy def mhm. dañoo war a dàqante sax rawante pour ñëw sponsoriser émission bi kon ñu ngi woo ñëpp incha allah macha allah mbokk yi kon déglu nañ tey suñu mbokk Mouhamadou Moustapha Lo bokk ci jury bi kay kàddoom bu ñu ñëwaatee incha allah keneen ci membre jury bi ñu joxaat ko rek mu jotal ay kàddu muy la am solo kon mbokk yi ñu ngi ciy woo ñëpp seen émission la. mbirum l'islam la luy dooleel diine la macha allah di lu am solo waxuma ne sax ñi nga xam ne ay société la nag yooyu war a ñëw sponsorisé ñooñu loolu comme ni ko Moustapha waxee loolu dafa am solo waaye nit ñi yéen ñi nga xamante ni ay defkatu lu baax ngeen lii ngeen dégg mbokk yi di ko def bu ñu sañoon teral leen bu baax a baax a baax bu ñuy tëj bu kenn xeeb dara loo xamante ni bëgg nga ko jëf ni lii dama koo terale noddukat yi nga xamante ni ñoo doon noddu ku ci def yàlla na la yàlla fay man da alladi yuqridu llaha qardan xasanan yàlla ku ko lebal xam ne moo mën a fay seen émission Bilal fii ci seen télévision 2STV yi di leen joxaat rendez-vous beneen dimanche wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu